amis et internet univers info tv di leen bëgge bu baax baax di leen si siyaar di leen jox seen wàccuwaay waaye di leen ñaanal jàmm ju baree bari te di ko sàkku ci yéen comme nu ñu amee habitude di ko def di dox ci rien que pour faire plaisir ci actualité ba tax na tey ñu seet si nga xam ne moo di Selbé Tata Selbé nekkatul ku ñuy présenté ci univers info tv ñu daal di waxtaan lépp loo xam ne ëtt na actualité méngoog tolluwaayu jamono donc sans plus tarder dama koy bàyyi mu nuyoo rek ñu daal di jëm ci li nga xam ni mooy suñu waxtaan Tata Selbé billahi mina sheytaani rajim bisimilah rahmaani rahim di sant yàlla rek sant yàlla may sant yàlla sama borom xam naa fu mu commencé waaye mënu maa xam fu mu yem julli ci sangu-sang yi muy seydina muhammadin sallallahu taala alayhi wa sallam di sant sama papa moom mi nga xam ne moo yoroon otom dama si yóbbu Tuubaa ba ma màgg ba mën a xàmmee ba mën a demal sama bopp mm-hmm. ba mën a demal sama bopp maa ngi sant yàlla bu baax a baax a baax a baax a baax mm-hmm. àdduna nag kenn ku ci nekk am nga sa xarit am nga sa wóorlee da muy Seydi Mouhamed Moustapha si di ko ñaanal gudd fan ak wér di ko wax ne bon gàmm te gàmmam gii muy gàmm yal na dàq gàmm bu mu mës a gàmm yal na gàmm bi dàq ci barakati laa ilaha illa muhammadu rasulullah di ziyaara bu baax waa univers info ñu mhm. ñun tamit ñu ngi lay delloo ziar bu wér a taasal ba gis nañ nag instant bi li nga xam ni moo di tolluwaayu jamono. Mhm. ni dëkk bi jaxasoo rey ni mu baree. Mhm. Euh, bañ ciy jaalewaale ki nga xam ne moo di Aziz yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko aljana muy Aziz Dabala gis nga tamit li nga xam ne noonu la génnee àdduna en tant que porteur de voix tey loo ñuy wax ci lool ah, euh, tey moom beneen facette laa ci indi ndax. Euh, damay taxaw ci palaasu yaayu Aziz ëmb sa doom ci farata yàlla sunnas muhammad rasulullahi nàmpal muy raam di dox di màgg di màgg di màgg ba commencé am njëriñ boo sañoon day gudd fan ànd ak wér man laa tabaxal kër yóbbu la màkk nga ziyaara yonent bi foofu la Aziz yaayu Aziz tolloon ak Aziz Aziz aussi mébétam yëpp mooy dimbale yaayam jëndal ko kër tabaxal ko yóbbu ko mu ziyaare gi Seydina Muhammad réew mi na imaam yi ñaan jumaay nañ ci wàcc ay kaamil ñaan yàlla subhanahu wa taala lii nekk Sénégal dañ ba set wicc hmm. beneen bi mooy président Diomaye moom mi nga xam ne moom la yàlla jiital mu nekk président de la république du Sénégal maa ngi koy ñaan ak premier ministre muy Ousmane Sonko ñu naan ko Ousmane Sonko mu sell mi nañ sellal Sénégal ut ay liggéey jox ko la jeunesse ndax agression yi bari na te affaire xaalis rek nga ciy dégg. donte kon nag am na si sax yoo xam ne du affaire xaalis muy affaire Aziz Dabala bii ku wax ne xaalis la du dëgg ku wax ne yedd la du dëgg beneen affaire la parce que samay pettaaw du fen te man ci deret ji ma gisee <laughs> meurtre yi ak niñ ko jàppee ñett xale yu koy góor yu ko jàpp xale bu góor bu ñuul bi sëgg di ko jëm ci deret ji laa ko gisee mu ngi nii waaw waaw fi nit ñi xool ak fi bi di xool bokkul mais damay lancer pour Bassirou Diomaye Faye ak Ousmane Sonko nañu utal xale yi ay liggéey chômage bi bëri na. Mhm. xëy na bu liggéey amoon kenn amul jot doo am jotu agressé doo am jotu leneen waaw. Mhm. di wax imaam yi nañu wàcce kaamil. jàkka yëpp nañu wàcce kaamil kër yi nañu ut ku leen wàcceel kaamil ndax Sénégal li fi nekk suñu borom def ci jàmm. loolu mooy première bi après incha allah dinañ ñëw ci deuxième bi. ci mhm. kattanu yàlla incha mais mais ma la déggee sa biir wax dafa mel ni deew Aziz Dabala bi da ko gisoon bien avant parce que yaa ngi naan deret bi. non non no non ci deretam bi bi bi rek euh, ni ñu ko doon wàccee ni ñu doon diree ci deret bi moo feeñ. xanaa xanaa du ngeen seetaan yeneen sud yi. bien koy seetaan. Mhm. man génne naa ko. deret bi mi ngi nii xale bu jigéen bi bi Aziz Dabala nekkaloon borom baat bu gudd bi kenn la mu nekk Nabou Leye mu seq ak moom relation amoureuse moo génn fi fii péri kii la fi teg petite tête la fi teg takk jaaro yu yu yu xaw a ngande kaay bu nekkee am nga vision nga xool <laughs> xam nga xam-xam danga koy judduwaale gis nga baat baa ngi nii xale bu jigéen bi baat baa ngi nii gis nga baat bi nu mu guddee xoolal jaaro nopp bi xoolal perruque bi mooy yenn côté yi di di di gàtt côté gauche bi moo gàtt côté droite bi karaw gi ñëw fii gis nga ko jaaro baa ngi nii baat baa ngi nii ci deret ji ko gisee gis nga baat baa ngi nii gis nga ni muy fóonanteeg borom borom karaw gu bëri gi su nekkee gis nga ko gis nga ko voilà xaaral ma won la beneen bi meurtrier yi nee na man Selbé Ndom nee naa leen. des na deret maanaam comprendre ma xam nga dañoo foto deret bi tuuru foofu. mooy ci kër gi appartement kër gi appartement bi deret boobu nag man moom laa sume te fu nekk fu ma neex laay xool te yàlla dafa may xam-xam bu naturel kaay ndax gis nga boroom veer yi gis nga veer yi gis nga bakkan bi gis nga faas bi gémmiñ gaa ngi nii. yaa ngi dégg les meurtriers ñu ngi nii xoolal seeni bët fii xoolal seeni bët gis nga ñaari tache weex yi mooy seen bët yi maanaam xale bu góor bi nga xam ne dafa sëgg gis nga ki sëgg dañ koo jàpp gis bopp baa ngi nii gis nga bopp baa ngi nii bopp Aziz mi ngi gis nga benn ñaar ñett ba ci ñeent ñi nga xam ne ñoo ko jàpp léegi nag ki nga xam ne mooy ci gën a ñuul moo sëgg mooy jam mm-hmm. dañ ko jàpp c'est naturel c'est naturel fii su ma ko zoomé woon sax danaa fa gis leneen leneen lu garaaw lu gën a garaaw fii boo xoolee gis nga xale bu jigéen baa ngi nii xale bu góor bi nga xam ne bi mu nekkal mu koy doxaan boo xam ne da koy agressé yenn saa yi da koy xoj dafa génn fii c'est que bugguma ci sori <laughs> bugguma ci sori barakati laa ilaha illallahu inventé wu ma parce que dama dem ziyaare ak Seydina Mohamed toog ci barabam bi muy benn dem ci kaaba gi nga xam ne dañ ne muy néegu yàlla galo te dem naa màkka man damay wax ashhadu an laa ilaha illa di wax wa anna muhammadan rasulullahi maanaam du affaire xaalis du affaire tëri tux yàmba wala sàngara tiit loolu yëpp Aziz def ko nañu wax li nekk ci biir des na keneen ko war a feeñ jeexagul ñoom liñ ci wax yëpp dara amu ci kenn rek reyu ko dañ koo sot trois personnes wala quatre ñoo ko tiim ñoo ko jàpp kii rey doo ko tiim man de ma part personnelle li ma gis en tant que borom xam-xam sama xam-xam jànguma ko dama ko judduwaale te nit ñi war nañ mën a nangu lii ma leen wax ci deret ji parce que benn Selbé Ndom mooy taxaw fii ci senegal ne bëri bii di waaj ñëw ñaari round lay doon muy Balla Gaye ak Tapha amul seetkat bu fi wax ne ñaari round lay doon bu fi wax Mm-hmm. amul man sama maa ko wax te ñaari round la lan moo ma wax ne Balla Gaye ba muy bëri gi ki ni wetu ndey joor lay daanoo te booba dara dara ñëwagu ci ak yeneen ak yeneen 2009 ma ne président Macky Sall mooy topp ci Ablaye Wade maanaam marqué naa suma empreinte kon tey su ma demee ba ne gis naa ci deret ji gisuma nag commentaire yu ko yu ko demantir mais damay xalaat suma tara yu bàmmeel vraiment xaw ma ndax sax balaa ma fay jóge dinaa dee kon su may wax damay wax li ma gis dootuma bës ndax kër gi ngeen toog ci seet laa ko amee seet moo tax ma takk or yére bu ma sol ci laa ko jënd aw ma kenn ku may may benn dërëm sama papa gaañu na sama yaay gaañu na man maa jàppoon julli ñaari rakka ñaan yàlla sama sëy na tas te bu tasee bu ma amaat jëkkër bu ma amaat doom loolu ma yàlla defal kon aw temps caaxaan mais xale bu góor bi âge Euh, bi muy dee boo xoolee ci fii ah fii ci ci sama voyance fii fii fii may xoole kanam gi yëpp dafa taq deret ndax ci bopp bi lay jóge di wàcc tiim ma nag néeg waaye fii laa toog su ma neexee ma wax leen ci lu ngeen mën a dégg lu àdduna bi mën a dégg utuma bës romb naa foofu moo tax dama naan tekki rek suñ ma wax loo damay wax bu ma wax loowul du ma wax biñ ma wax loolu laa wax ñaan yàlla maanaam euh, justice bi na def liggéeyam bu baax ba luqati ki nga xam ne moo des ak li war a rey bi gars yi nañ ko wax du day tux yàmba wala muy naan sàngara wala day def affaire góor jigéen non non loolu ñu ko fiy def ñu ngi fii te kenn reyu leen pourquoi ñu bëgg ko rey ci loolu naan dañu xëbal c'est du loolu nañ wax cas bi ni mu demee carrément na na lay wax euh, affaire bi dafa war a leer ndax dañoo rey ab yaakaar dañoo rey soutien de famille maanaam war nañoo mën a xool ñoom Inoo ñu doon wax naan dafa bon dañoo bon mais ñii ñoo gën a bon ñoom Inoo dégg ngeen mës ngeen dégg ñoom Inoo ñu ne rey nañ nit ak ñoom Alex cambrioleur lay sàcc oto ñoom loolu la doon def ak di évadé prison ne ñoo xam ne dañoo mën a tiim ki ñu xam mu ñàq di leen jox di ko jëndee warga di leen jox ñuy bokk di naan muy ñaq di joxe ñuy togg seen i mbaxal ak ceeb ñu togg di lekk ñoom ñoo mën a ko ñoo rey mais nañu xool affaire bi quand mais mais ñi nga xam ne yoon tee na leen nekkul ni carrément dañu wax ni ñoo rey mais ni leen a pour enquête bi gën a sori. ñoo ñu dañ leen koo sant rek ñi leen sant nañ ko wax nañ ko nañ wax ñi leen sant parce que tëbuñu tëb rek yàgg nañoo moom te rey ñu ko quand mm-hmm. xam nga àdduna bi fi mu ne xaalis tax na nit di def nit sa moroom doomu aadama lu ne. gore amatul xarit amatul ndax ka nga gën a wóolu defe na mooy sa xarit maanaam moo lay trompé mm-hmm. yëpp dañ koy jël ci cadre nabu Leye rek parce que li mu def doon jege Aziz di génn ak Aziz moo ko Aziz ñuy nobante di def lu ne di ànd tey moo taxaw mën a impliqué Aziz mën a dee nem Nabou Leye mën a taxaw te fañ koy génnee te Nabou Leye yuuxuwul faaw ñu tudd Nabou Leye su fekkante ne dafa yuuxu kenn du ko tudd bu fekkante ne toogul ba mu yàgg mu woote ne ñëw leen dañuy dajji ndeyu bunt bi damay dajji bunt bi mënatumaa xaar lu tax mu cible bunt bi rek ne da koo war a dajje parce que xam na la fa nekk lu tax mu ne mu joxoñ salle ba ne nañ xool salle bi parce que dafa am lu nekk salle de man man mënumaa tëb rek ñëw rek ne leen damay dajji ndeyu bunt bi am na lu fi nekk daal woo magam magu Aziz ne ko yow yaay yow yaay jiitu yaay mbokkam yow la gën a jege pourtant non kooku jegewu ko moom Nabou Leye moo gën a jege Aziz Dabala question boobu pour lan la est-ce que lu tax mënutoon a xalaat ne euh, Aziz daal fecc bi neexu ko ndax da koy sonal xëy na dajale na xaalis lijjanti na passeport am dem na aéroport dem na tukki lu tax xalaatul loolu hmm? lu tax xalaatul ne xëy na dem na ci bateau yi wala gaal yi am na occasion génn dem bitim réew te moom am na caabi lu tax indiwul caabeem utiliser ko xale yu góor yi nga xam ne dañoo dugg ku leen ubbil ak ku leen wax ne Aziz mi ngi ci yoon bi léegi mu yegg si xale bu góor bi nga xam ne Aziz bi muy jël oto rek moom dafa taxaw lan ma ko wax ne Aziz mi ngi taxaw foofu xam nga ñun on est des sénégalais et vraiment ñun dañu am xel benn bu ci nekk rek téyewoon na na lay benn kese mooy taxaw ne day ubbi ndeyu bunt bi ñaareel bi mu ne nañu xool salle bain bi ndax gisu leen fa kenn ndax dafa dégradé <laughs> xale bi dafa dégradé waali dafa dégradé quand même liñ ko mën fi ñu mën a seen tànk bëri na daal mhm. waaw nga ne kii sa xarit la quand mais moom Aziz dañoo ànd parce que ànd bi du benn at du ñaari at dañoo ànd xaritam la mu xamal ko biir ak biti mm-hmm. est-ce que tamit euh, sës gi mu ko sës ak ni ñu àndee dundandoo lu bari bari est-ce que xolam may na ko tey jii muy muy muy bokk ci ci meurtre bi nga xam ni tey jii moo am wala loxoom du ci set est-ce que nekkul ay tuuma yu ñu ko tegal rek tam man Selbé Ndom dama naan xolom attan na ko fan nga teg loolu ndax bu fekkonte ne bokk ci wala xamu ci dara jigéen laa te am naa benn doom bu jigéen samay rakk jural nañ ma jigéen xam naa ne yàlla am na loo waxte du dëgg ëllëg yoo man xiyam ka ngay waxal du jar muy julli du jar muy woor ndax la ngay def ci lu baax dañ koy yëkkati jox ko ko te man li muy def ci lu baax di joxe ñam jigéen bu bëgg a tas ma nax la ba doo tas lu ma am bokk naa ko ñi ma dëkkal bu ma rombee ci mbedd sax gis kenn ku ma war a yóbbaale dama naan sama chauffeur yóbbaale maanaam bëgguma ëllëg yu ma xiyam benn doomu aadama tardel ma moom moo tax ma toog li tax ñu génne kooru Aziz te na ba la yuuxuwul sol lu bon te xam na ne dee na sol tubéyam boo xam ne ay feesam yëpp ay génn jël ay loxom boor taxaw di xool ñun koor bi romb ko te yuuxuwul bu doon yow duñ ko def muy benn li tax mu sibile néeg bi muy ñaar ñun ay xel rekk lañu am nekkuñu ay bàyyi ma quand même ay doomu aadama lañu yoo xam ne tey buñ tegoon selbe de muy juge benn benn ni may décortiquer làmb ji noonu laay décortiquer feey wax la te duma duma échoué man enquête bu nekkoon ci man duma ci def ñeenti fan ñi nga xam ne ñoo ne ñoo jam dama leen di teg fale ki nga xam ne nag moo moo nekkoon nag moom xamal ko biiram xamal ko bitteem ñuy ànd di dem fu ne ba mu jël ko yóbbu ko fa mu mujjee dem man kooku lay amal affaire jigéen laa yéen moom benn jigéen lu bon man jigéen sax laay faral mais bu jigéen defee lu ëpp aussi faaw nga taxaw assumer ne kii lu mu def jaaduwul décortiquer di tax man ma ne moom mi ngi ci dama ko décortiquer ci ay feem mais nekkul dama ko yëpp parce que xaw ma ko musuma jox loxo Aziz Dabala musuma ko gis ni jëxërën sax voilà mais nit ñi dañuy wax def seen analyse fee man damay def sama analyse feneen gisuñu benn seetkat wala benn sëriñ bu ne deret ji gis naa ci lii ak lii. Mhm. man ci man ci deret ji laa gis. parce que deret ji gis bi nga ko gis nekkulu lu naturel parce que man bu ma ko doon xool fi ba suba mën naa ci bañ a gis loolu mais. xaj na Selbé li mu xam ak li mu xam ni euh, xam-xam bi ko yàlla may moo tax mu gis ci loolu tamit. xam nga kii xool jigéenu biir nga ëmb tey ma xool sa ëmb mën laa wax ne doom bu jigéen ngay jur am nga doom ba pare yow am nga doom ba pare. mën ngaa am doom bu jigéen incha allah mën nga taawloo doom bu jigéen ci kàttanu yàlla te ëmb ko dama ko def ay nit bay joxe ay tur. asamaani yàlla si am na benn at boo xam ne dama ne dee gi dina be dina bëri te ay jeune la bu nekkee yaa ngi koy fàttaliku ay xale te si asamaan si nuage yi su nuage yoon léegi ma wax la ci lu leer sama xam-xam bëgguma ko woon sax pour vous la vérité ki ne gis na Jibril alayhi salaam le 28 septembre 1989 ki wax ne gis na maam Baay Ñas radiyallahu anhu ba mu jox ma loxo sama loxo bi ak loxo maam Baay Ñas tege na billaahi wallahi tallaahi sama loxo bi ak loxo Cheikh Ahmada yi tege na nuyu nañ ma ñoo ma seet si euh, sama loxo bi ak loxo ki yore kii bi Cheikh Omar Fouti bant bi gis nañ ko maanaam maam Baye Niass <laughs> yonent bi fu mu nekk da koy topp man maa la ko wax maam Baye Niass radiyallahu anhu fu yonent bi nekk maam Baye boo geesoo gis ko fa c'est pas parce que je suis pas Tidiane man je suis Mouride laa Laayeen maam Limaamul Mahdi yu am na suma frère bu ma bëggoon a tëj ndax ay seytaane yu ko topp di ko wax naan ko kii def ko nangam ak nangam mais maam li Limaamul Mahdi yu moo ma feeñu ne ma sel ba duggal ci géej gi ma dugg ci géej gi. keroog as ndaw suma chauffeur bi may dawalal tey sama 4x4 bi moo ma yóbbu ci kalandoo kon maanaam man sama xam-xam yenn saa sax damay naan samay doom dañ may daw duñu dëkk kenn ñemewul fanaan ak man. man tey boo duggee sama néeg du lal buñ lal bañ tàlli ba mu tàlli de après naa la ko woon même bu ko xale dégagé dindi ko defar ko tout toujours bagage yi day nekk ci kaw lal bi rek tout le temps néeg bi tout le temps day tilim te bi nga xam ne commencé gu ma seet sama néeg doo fa for benn pepp suuf mais depuis ma commencé liggéey ba tey sama néeg day désordre yenn saa nga gis yére yu jale nga gis mu ne ah nag de dinaa ko rey nag feeñ na nii de nangam ak nangam lu lu naturel la ma yàlla jox ñe moom tiitaru Sénégal fii ku ma fi ëpp xam-xam ah néew ma amul waaye bëriwut de lu leer laa am togg nag moom laa choisir doon comme métier di togg di yàq mais loolu yàlla ne lii ngay def ala kulli xaalin boo ko deful man fi ma bokk sama wàllu baay tey boo tëkk woon tey moom yow doo fanaan yal na nga gudd fan ànd ak wér euh, dama bokk ci famille bu garaaw sama wàllu yaay aussi mu am famille bu garaaw ba mu bokk seen xalima du laal suuf mais man dama ne loolu yëpp existé wul man li ma yàlla bindee man ma judd rek commencé wax papa lii may am papa gis nga lii papa lii may am moo tax sama papa fukki doom ak ñeent yu mu am yëpp maa ko ci gënal man maa ci ko ci gënal ba ci man maa mu mujjee gis. Mhm. kon maanaam lu naturel la daal. Mhm. Mhm. sànq sa biir wax yaa ngi naan ñi leen yónni lañ génn comme si dañoo yónni ay nit pour ñu nga xam ne. bien sûr parce que affaire bi bu ñu taxawee ne dañ ko dañ ko doon yedd ba di ko xëbal du dëgg intention rey moo leen taxoon jóg nañu wax principal bi tax ñu rey Aziz Dabala dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg moo gën. bu ko defee dinañu euh, dinañu désactiver doomu aadama yi yëpp ñun ñëpp dee nañu parce que nee naa la Aziz dabalaa bi mu gaañoo ma gis ko ci internet bi jour boobu ci guddi gi sanguma damaa fanaane xool internet le lendemain ci lal bi laa nekk tëdd rek tey jii daal laa xam ne moom laay doog a jóg tey boobu ba tey maa ngi tëdd mënuma toog une minute te xooluma internet bi xool ba xam ndax Aziz ñu ko rey nan nañ ko reyee mais man li ma won deret ji ma xool du dëñ illaa yawmi diini parce que lii moo gën a garaaw seet vision moo gën a garaaw vision moo gën a garaaw jinne mënoon naa dugg fii léegi man maa yëg ne jinne dugg na dend naa ak man yow mi ma dendal doo ko yëg naa di nga am doom jigéen nañ dem lii lii duñ koy effacé de. Mm-hmm. macha allah ba pare li nga xam ne moo di xaritoo parce que boo xoolee ñoom ñaar seen xaritoo yàgg na ñu bari ñu ngi naan xarit amatul léegi nit doo am ci moom confiance lan ngay wax ci loolu. man dama préféré léegi ma def yàlla xarit bien avant affaire Aziz bi sax dama ne woon damay bàyyi xarit ndax xarit mooy su ma xaritoo ak yow euh, li nga yendoo mm-hmm. man war naa ko xam. man li ma yendoo yow war nga koo xam mais xarit boo xam ne moom moo lay xamal rek yow mën nga am problème di ma ko nëbb ba ma dégg ko feneen ñëw di la ko wax loolu moom maanaam du xarit xarit ah néew ma amul de waaye man de ma xarit man daal dama jël yàlla def ko sama xarit mhm. waaw man daal yàlla laa def sama xarit lu mhm. ma am lu may wax daal moom laay waxal mhm. ndax tey di koo fa jublu tey nit dina ñëw miina la boppam ba pare xëcc xëy rek wan la ginnaaw loolu day am man de ma personnel moom. bu dee man donc kenn du am xarit ndax dematuma fenn maa ngi toog. ci biir ray bi dañ cee boole nga xam ne moo di Wally te Wally nekkul koo xam ne siiw siiwul parce que feccul def benn affaire mais dañ ko waaw loolu tamit. loolu ñoom li tax ñu def ko du lu leen yi def wala ñu Wally wax Wally gis na affaire yi xam nañ ne ñii ñoo def lii moo tax buñ ko rayul da leen di boole kenn kenn ndax dara maa gis diw ak diw ak diw loolu rek moo tax ñu rey Wally waaye Wally amul âge bu muy defee kenn leen quand même. Mhm. da leen a gis rek sûrement looloo tax. Mhm. xam ne bu ñëwee ci néeg bi di leen a gis wala gis na leen ba pare. Mhm. looloo tax ñu ñu rey ko. mais bu weesoo euh, ki nga xam ne moo di génn àdduna Aziz Dabala ak bëri na tamit ci ay rendi wala ay ray yoo xam ne ñu ngi koy enregistré famille ci Sénégal. waaw tey jii est-ce amul sarax wala loo xam ne tey jii. dina fa lu bëree bëri. Jomaay Jomaay nag génn deux cent. quarante trois. deux cent quarante trois nag. moo ëppale mm, président Macky tànk tuuru ñu ay nag ci réew mi fu am rab ñu rey fa tuur fa deret ja toj yàpp wa séddale ko waa foofa du wàññeeku de mm-hmm. mm, gis naa ñaar ñoo xam ne ñaar ñoo xam ne war nañ cee tege ay lan lañ ñu ñu xam ñu ñu xam ñu ñu xam gis naa leen ñu tëdd ñaar waaw ñaar ñaari doomu aadama yéen nañ ci yàlla musul quand même parce que man wallahi nit ñee may yéene lu bon mais man yéenuma kenn lu bon Selbé dafa baax xolam rafet xëy ne nag boo ma tooñee beneen jikko bi ngay gis ci man kooku ci dama ko jëlee sama papa bañ gi sama papa laa ko jëlee euh, dund na ba dem wuy ji boromam mosumaa yónnee na ma demal nit lebal ma cent franc mosul bugg sax ma génn man saal bi bu ma fi duggee rek xamal ne dama am gan sinon du fi dugg waaw. mais tey en tant yaay ki nga xam ne moo di doomu Nabou Leye ni ko ki ko nit ñi di xasee ci internet bi di taf fotoom di ko traité bi n'importe quoi tey en tant yaay tey looy wax. na ko papaam na ko papaam récupéré maanaam téye ko ci wetam te mu nangu téléphone am moo gën parce que euh, nit ki àdduna Nabou Leye yàqu na. Euh, xale bi bu concentré wul dëgg-dëgg ci leneen maanaam àdduna mën naa yàqu ndax foofu mu dëkk moom mënatu faa romb faaw ñu changer vie ñoo xam dañ koy yóbbu États-Unis wala beneen réew maanaam moo gën warul woon génn sax internet quand mhm. su doon man man sama doom bi ma commencé liggéey ba tey ñaata at la mais mi ngi doog a dégg génn internet ci ci sama cant yi bay jooy naan bëgguma ñu saaga sama yaay bay jooy kenn mësul gis sama doom man sama doom bu góor boo ñëwul ci kër gi xamoo ko xàmmee woo donc nañu bàyyi xel ci loolu mm-hmm. yal na ko yàlla jàppale xale bi moom mi deful waxul maanaam yaayam moo def yaayam ak paxam moom ak paxam nañ ko sarax rek bàyyi xale bi daal mm-hmm. nañ ko nañ ko sarax bàyyi ko parce que moom il rien fait Mhm. mais pourtant yaayam ciblé wuñu à 100% ne moo def. la. Mhm. buñ ko ciblé woon buñ ko ciblé woon mais moom ma nga ca moo nekk ca bopp ba. xam nga lu tax mu nekk ca bopp ba moom moo ànd ak Aziz Aziz bëgguwul na dem ca jàng yi moo ko yóbbu ca jàng yi ca la wax ba jote faak ay nit mu jël oto déposé ko fam ko wàcce nan la ko xale bu góor ba xamee ne fii la Aziz taxaw xanaa xamoo pour man man ma ma waxloo Nabou Leye lu yomb la ci man parce que fee rek boo ci toppee rek da ngay xam ne moom laale na ci nag dañ waxante dëgg sama bët baa ngi raf wii laale na ci man dama ay signes yu ma yàlla di jox hmm. tey ma wax ko waa internet sama suufu bët fii sama suufu bët fii bu rafee ay jooy la mooy non fii ci kaw bu rafee muy wii te maa ngi wax sama bët bi ci kaw mi ngi raf damam xam-xam naturel takkuma téere yoruma laar def ma ay béjjén sama kër amul téere je suis naturel et je vais mourir naturel mm-hmm. damay am wii am non su ma bëggee def dara nga xam ne li may def baaxul dañ may jox signe bi ma toog na ma déedéet di may def su baaxee dañ may jox signe na ma waaw mais yi ni mu ni mu demee yëpp lépp ñu naan nabu lay taxawoon na fii te biñ ko laajee dafa ne tax lieu de meurtre bi nekk fa woon mais eh, localisé nañ xam nañ ne mi ngi foon sa xarit benn bakkan koo xam ne yaag moom boo ngeen xëyee yéen yendu balaa ngeen a tàggoo muy guddi ngay tëddi moom muy tëddi ñu mën koo rey nga xam ko nga mën a taxaw boot say ginnaaw nit ñi la jooy nga naa leen dee na jeex na mais xel xel mën naa ñaaw est-ce que yow sa xel ñaawul. Mhm. sa xel du ñaaw sa yaram du dara. Mhm. waaw. mais ci 243 yi nga xam moom la ñu war a génne eh, ci li nga xam ne moo di nag Diomaye war na ko génne ah, instant bi nag nga ci war a mën a def ba xam ne ki nga xam ne président Diomaye jot na ak bu génnul tamit yan conséquences la mën a am. deret nit yi di gën a tuuru rek. yaakaar naa deretu nag bu tuuru moo gën deretu nit bu tuuru deretu nag bu tuuru moo gën deretu nit bu tuuru mhm. waaw dee moom dina bari kon daal sarax bi c'est force def force la bi force la moo nekk ci réew mi fu mhm. fekkoonte ne damaa nekk milliardaire yal na ko yàlla def su boobaa du ma ne président Diomaye Faye génneel nangam waaye ginnaaw yàlla dafa teg réew mi yépp ci loxoom maanaam mu nekk suñu njiit jiitañu tey bu taxawoon ne Selbé Ndom doo fanaan sa kër su ma bañee it gàdd corps yi ñoo ñëw génn ma ci biti maanaam kooku làkk laa naan moom la koy def te damaa wàññi turam bi ak santam bi moom laa ko moom laa génne président Macky Sall 99 la kii 243. Mhm. voilà 200 nag. 43 la war a génne ñu def ko ci tali yi accident yi wàññeeku ñu sànni ko ci géej gi maanaam fu lieu bu ñu xam ne fii raba nga fi rek ñu dem sotti xam fu rab nekk dafa yomb boroom xam-xam boo taxawee fu rab nekk sa yaram bi day daw dangay day day def chair de poule nga xam ne fii dara nga fi nga def fa sax mais am na seetkat bu mag bu génn ni que ni Aziz Dabala li nga xam ne moo di deewam bi dina yóbbaale ñu bari ab ban seetkat la Ablaye Mm-hmm. ñu ne ah man de gisuma ko Aziz war a yóbbaale daal xam nga ku nekk sa xam-xam nag du weddi kenn wax dëgg yàlla xam nga suuratu najmi suuratu najmi mi euh, dafa ne afatumaaruunahu ala ma yara duma werante ak mukk ci gis-gisam waaw waaye man daal yaakaar naa li ma gis daal man mi mën a xool ci deret bay gis ba gis ka ca des ki nga xam ne day doxaan soxna si sonal ko ba di ko xoj kooku daal buñ ko génnee wax ji dina leer ndax man naa fi njëkk a wax ne Aziz Dabala danoon doxaan Nabou Leye ba gars yi trouvé ko ba muy dëgg di gis nga ñu ne Adamo génne lu motif ba Choco di jooy xaw ma nag dëgg la am gis naa daal Choco di jooy rek ñoom maa ngi leen nuyu au passage te maa ngi conseillé lenn ñi nga xam ne ñoom ñëpp ñooy wax ci affaire nagule Leye wax ci yaayu Aziz Dabala maanaam nañ leen ketal rek nañ leen ketal kenn ku ci nekk aadamoo mi ngi koy def na Kaliphone ket Choco ket maanaam ñëpp daal ñu ciy wax nañu ket journaliste yi aussi nañu ubbi benn cagnotte boo xam ne dañuy ñaanal euh, yaayu Aziz Dabala aide pour buñ ko dajalee dina mën a am kër. Mhm. buñ ko dajalee dinañ ko mën a yóbbu mu jaare gi naa Muhammad loolu massa la rek maanaam fajul góom waaye sedd na xol tuuti. Mhm. waaw loolu moom maa ngi leen koy ñaan ñoom ñëpp. Mhm. taa Selbé ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. ci opportunité bi nga xam ne may nga ñu ko ñu toog waxtaan ak yow. ak akay beeg euh, teraanga yi ñu la ciy jaajëfal bu baax a baax. ana lan ngay tàggatoo rek ñu daal teg li nga xam ma di émission Ah, comme ni ko waxee ni ko galo waxee rek numéro yi na ne daj ci écran bi muy benn <laughs> ñaareel bi maanaam nañu xool yàlla te xam ne yàlla moo ñu gën a gaaw foofu bu dee baax moo ñu gën a baax moom rek moo yeyoo rey moom mi bind tabax defar kii ñuul kii xees ñun ñett ñëpp bokkuñu ñu mhm. maanaam nuroowuñu yàlla mën a def kii ñu mën ko wax galo kii ñu mën ko wax turam man ñu mën ma wax sama tur te kenn ku ci nekk xam nga ne yow mi yaay diw loolu yàlla rek ko man nañu xoolaat tey ñaan Bassirou Diomaye daal mu ak Ousmane Sonko ñu gaaw régler ay emploi milliardaires yi nekk ci réew mi tamit am na si ñuy def ñu ngi ñu ngi gérer seeni seeni kii liggéeyukaay yoo xam ne ñu ngi jël ay doomu aadama waaye tamit maanaam mën nañoo yokk rek mën nañoo yokk rek te ñu yokk armée bi recrité ay xale encore def ci recruter gendarme recruter militaire yi recruter euh, médecine yi yëpp wàll wu ci nekk rek ñu jël dara coppati def ca day tax population bi am na ñu si bëri ñoo xam ne du ñu am jot waaye boo bëggee sol tubéy sol dàll jof sa casquette bu cher jam sa seeni or maanaam ñëpp bëgg lu baax quand même boo ko amul di nga sàcc di nga cambriolé loolu rek la na yàlla def ci réew mi jàmm lépp na mujjee sedd guy ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mhm. donc yàlla na jàmm yàgg yàlla na ñëpp am jàmm euh, ci barke Seydina Muhammad donc d'ici là portez-vous très bien ngeen abonné ci sunu page aimé like et partagé ngir ngeen ma jot information en temps réel Univers Info TV